xaw ma fan la ñuy soogay ci Sénégal waaye Kaffrine bokk ma indi leen nuyu ak ngërmande président Macky Ba président Macky Sall moo ko mu ko tànnee ñëpp xam nañ ñëpp xam nañ. président Macky Sall Amadou lay jàppale su ah président Macky Sall jàppale wutoon Amadou Ba kenn du ma mais ñëpp xam nañ bu dee xol ak bu dee xel man lépp demoon na ci Amadou bu ma jàppee ci 19 candidats yi Amadou amu ci morom ñu doon wax ñu doon wax jomaay jommi nañu démb parce que gis nañ ni ñooñu président délégué lañ ñu bëgg indil Sénégal ñun président de la république lañ soxla ñu présenté ñu président délégué su toon ci mbaaxu Macky Sall ak yërmande Macky Sall tey mbir mi du demee noonu waaye maa ngi félicité Ousmane Sonko parce que au moins reconnaître na ko nee na grâce à la clémence du président Macky Sall tey ñu ngi fi loolu mooy loi d'amnistie ci assemblée nationale ñoom woote wuñu ko ñi ànd ak Ousmane Sonko président Macky Sall ne nañu génne Ousmane Sonko ñoom dañoo newoon bëgguñu Ousmane Sonko génn. waaye ci loi boobu xam nga ci loi PDS bi dem nañu conseil constitutionnel de mais ci loi bii kenn demu ci conseil constitutionnel am na lu tax mais danañ ko leeral li ñu gis tey ci Kaffrine du Ablaye Sow kese responsable yëpp la ma bëgg ñu jàppante ci noonu élection yi du élection Macky Sall fii ci région bi du élection Amadou Ba suñu élection la ku ci nekk na taxaw boppam dem nemmeeku militants yi dem ci kër yi waxtaan ak ñëpp xool carte yi ñu dem wote ji élection législative région de Kaffrine mu ngi am 74 pour cent élection bii nañ am gàccey homme politique ak gàccey maire moo ñu joxe ay résultats sa commune gën cee néewle. Ah. moo tax waa Kaffrine man maay maire u Kaffrine liggéey nañu fii lu nga xam ni bu yemoon fii sax mandat bi neex na ba pare te loolu ki ko def mooy président Macky Sall. lépp lu ma fi mën def ko président Macky Sall ko def kon nag tey président Macky Sall le 2 avril mu war a jóge ci kaw bopp réew mi ma ñaan waa Kaffrine yëpp ku ci nekk na ci jàpp pour que Macky am ndam mooy Amadou Gagné le 24 mars la 2 avril président Macky Sall jox ko ndam parce que ñun ñoo am PSE ñun ñoo am programme beneen bi wóoluwuñ jomaay comme ko wóoluwuñ jomaay jomaay nag wax dëgg yàlla ku yarul waaw ñu am na ku ma wax ne ku mënta gañe commune am njaga njaga wóoluwuñ jomaay ñu ne nañ ko toftal vice président Sénégal ci constitution amul vice président ñoom ñu ne dañuy am vice président vice président boobu mooy jomaay buñ ko falee sonko mooy jiite loolu nag ñoo lànk am nañu candidat bu nga xam ni inspecteur de des des impôts de classe exceptionnelle nekkoon professeur à l'ENA jàngal Ousmane Sonko. jàngal Diomaye jàngal ñu mel man nekk directeur général des impôts nekk ministre de l'économie et des finances nekk ministre des affaires étrangères nekk premier ministre Sénégal nga koy jaawatle ak inspecteur buy doog a dugg donc photo dama ne 19 candidats yëpp le meilleur profil et l'intérêt du Sénégal c'est Amadou Ba. Amadou Amadou Amadou Amadou